jërë ngeen jëf waa man li ma dégg muy fireeku gisuma ko tiguma ko bët te aaw bu romb fonko sa jëkkër maanaam fonko sa client mu firi la waaw Olis loolu mu doon waa Tigo ñoo jàpp waa Orange firi leen ba ñu dese benn létt ba Tigo soppali ko nekk firi ba léegi Orange amatul jàmm maanaam Orange moo daw ko di woo wax lii Orange moo ngi mel ni ku lokk cinquante candidat mu la mu la taxaw li neexul koo gi rax daal baax ci kër day tax jeeg gi defarwaat li ma jaaxal mooy dëkk bi foo tourné ñëpp naan firi paayeeg maire jànq jeeg jeeg gi ñëpp nee moo ko yor géer daal day saf mondial firi daal moo bëri doole te am jom firi daal mbëkk na oran mbëkk bu am doole aawa bu fi nekk di cëpp-cëpp mbaa muy bandi bandi loolu wóor ko tigoo ndax mu réglé nga ni ma lan foofu doñ na rajax loo ci fu seeni ko muucu ba jeex maanaam ay ay slogan yu dëgg loo ko bañ bañ nangul ko mën a dawam Orange Money Free Money ñoom ñaar ñoo bokk maam la guerre des réseaux nga am foofu waaye ñàkk fayda weesul di concurrence bi koo xam ne yaa ko doon yóbbaale tout cas daal firi moom yëfu garant la boo taxit waa orange indaal nañ seen remonté daa bu amul fenn loolu nga ak beneen naan doole ju bëri ca orange mu ne concurrence daal baax na ci kër waxuma la ak réew moo taxit ñoom ñaar kenn ku ñu nekk heure xëy yaa nga yónnee say client ay promo yu amul fenn client yi daal kontaan nañ baa ngi noonu bu dara sedd tom tigo jéeri orange nga am foofu kon wëlis taa ñëwul ñu dem ba beneen yoon